ci walu paj mi yëkëti seen kàddu di dànkaafu nit ñi dañuy ragal moo di yëfi jekk-jekk ne jasar lu aju ci woppu jeeg ni mu mel ci réew mi ay way politique àddu ci jëme des na ci ànd it ak Abdoulaye Cissé ci taxaw seetlu boo xam ne def na ko ci tolluwaay jàngoro jeeg matuwaay yi ñu koy gunge jamono ju ñuy waajal tabaski gi gis ne jafe-jafe am ci wàllu dem beek dikk bi bokk na ci ndakaaru gu xat ndaxi embouteillage danañu def reportage jëm ci capital beek mbedd yu xat yu nit mënut a jaar daañu dellu ca terminus liberté 5 bu Dakar dem dikk ba foofe ñu bari ci askan wi ñoo nga fa taggatim bi mënuñu am ticket bi mën a tax ñu dem euh, tabaskee ji ci seeni i mbokk dinañu euh, waxit lu ñëw ci lu ñeel kon gerew bi nga xam ne dawalkati minibus tata yi nekkee woon nañu ko te teg ko fii suuf CETUD di rafetlu déggoo gi dox seen digg ak GIE transporteurs yi ba noppi nag di xam ne moom dana ci waggar ba li ñu déggoo ñu daal di koy jëfe loolee mbokk yi moo di taxañu xabaar yi buñ ko tàqarñee ba noppi daañu dalal Georges Déthié Diop ngir mu faram fàcceel ñu xibaar yi bi ci réew yi Malal Diagne junior la ñuy àndal ci wàllu tàggat yaram danaa leen jukki lit as lëf yëglekaay yi xëy di génn bës bu nekk bu ko defee ñu tëj ci xibaar yi tàggoo toftal ci xibaar yi ñu ñi eh, ñu jagleel wàllu tabaski gi ci njeextal xabaar yi lay doon Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjee woon ci bopp bi lañuy ñuy duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaaru digg bëccëg ak lim bi ñu am ci bëccëgu tey gi mu ñeel tolluwaayu coronavirus bi ci senegal juróom ñetti téeméer ak fanweer ak ñetti doomi aadama yu corona moom la ñu gis mu di lool gëj nañu ko am ci euh, bi ñu dugg ba ñu kon euh, ci ndoxteel weeru ci ndoxteel bi fi jàngoro ji feeñee ak léegi ci lañu ñu gëj a dégg lim bu ni toll.

léegi département bu Dakar li ñi amee feebar bu ëppee ba léegi ni ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaari kaa la am ci benn bés rek diggante lundi ak mardi écart bi maanaam li leen xaajale euh, ci nombre de cas dafa bëri toll ci ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent cas ëpp sax li ñu amoon ci lundi gi ci tënk daal mardi gi am na lu ëpp ñaar li ñu am ci lundi gi ci communiqué àllarba gi bu doon ne sax ci lundi gi la am ñi faatu ñu ëpp juróom ci mardi gi ñu am ñaar ci lundi gi it la ñu ñu dem ñàkku ji ko juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent cas ba léegi nii record bi moom mooy nombre bi ëppoon la bu tey bi 733 ñu wax ne ba tey ci communiqué numéro 495 bu vendredi bi amoon nañ lu tollook ñeenti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ñoo xamante ne am nañ ji mu xawoon yem pic gi ñu amoon ci deuxième vague bi maanaam weeru février yokku tepp cas yi nag tiital ñu bëri jamono joo xamante ne ñëpp ngi doxi seen soxla mu mel ni dara xewut wala sax mu mel ni ñu bëri ci askan wi dañu ñàkku te lu juróomi téeméer ak juróom-ñeent fukk junni ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent dong ñoom ñoo ñàkkoogum ci limub askan bu tollu ci booy seet 16 millions loolay firndeel amaguñu sax téeméer boo jël lu tollook ñeent yu dem ñàkku ji jamono ji ci wooyu le docteur Fallou Samb bokk ci ordre des médecins du Sénégal doon secrétaire général bu association des cliniques privées du Sénégal di xamle ne dal yëf fi mu toll buñ ci ëpp jëluti matuwaay ci ëppi loxo ci lay jëm ñaawlu na it li nga xamante ne ji moom la kilifa yi di wéyee rawatina kilifa état bi jëm ci noppi bañ cee wax euh, moom euh, médecin bi di sàkku daal ñu dellu siwaat mesure barrières yi te it gën cee taxaw ngir moytu lawal wopp ji ñu déglu ko moom docteur Fallou Samb ci euh, jokkoom ak Alaaji Njóogu Jéen dafay firndeel ne rek ñu ngi ci ñetteelu vague yi moom dugg nañ ci bu baax a baax a baax te lii moom bu jëm buñ ko arrêté kanam la jëm te du du du arrangé Sénégalais yi dina indi ay musiba yoo xam ne pour ñu mën koo saafara dina jafe lool lool loolu chiffre officiel kese la mais ñun ñi nekk ci terrain bi di consulter gis nañ fan yi yëpp daanaka juróomi malade yoo jël kenn am signe coronavirus même bu ko mënut de manière formelle aussi di nga gis ne li ñuy signes yëpp am na ko donc dañuy jàpp ne sax ñun léegi képp ku ñëwut socc wala nga am yenn jafe-jafe dañuy jàpp ne coronavirus donc li gën wóor ba gën wóor mooy ñu doole buum ca mboy mboy ko rek delluwaat bu njëlbeen nga maanaam ci mesure barrière rek distanciation sociale yi ak mesure restrictive yi loolu rek mooy mën a tax ñu mën maanaam état d'urgence beeg couvre-feu war nañ fa mën a delluwaat tax ñu Sénégalais yi mën a mucc nañ ci delluwaat responsabilité politique la responsabilité sanitaire la nañ ko def taxawaay moom dafa des dafa mel ne stratégie de pourrissement la ñuy def bàyyi Sénégalais yi ak feebar bi te loolu def naa du stratégie. problème bu am mel ni bu amee da war a jëlaat say responsabilité wax ak Sénégalais yi les Sénégalais ils nga wax ak ñoom expliquer leen parce que boo gën a ci ci mbedd mi gis sénégalais da ngay def da ngay tiit da ngay xam ne lii njaaxum dina am parce que chiffres yi ñuy wax ay chiffres officiels kese la mais ñun ñu ne ci terrain bi gis nañ ne pratiquement léegi juróomi malade yoo jël benn wala ñaari dañuy am suñu coronavirus docteur Fallou Samb beneen docteur bu àddu jëmale ci wooyule wàll moo di professeur Fatou Samba Ndiaye Euh, lu aju ci euh, li nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci l'hôpital yi moom secretaire général bu association femmes médecins Sénégal mi ngi yëkkati kàddoom kon di euh, sàkku ci kilifa yi ñu taxawu l'hôpital yi Eh, ci eh, wàlluy way muy équipement naka noné ay lal réanimation pré eh, réanimation akit lu aju ci générateur d'oxygène Mon professeur Fatou Samba Ndiaye doon coordinatrice coordonnatrice bu comité lutte contre épidémie ci hôpital bu Dalal Jàmm moo ne tay ji ganu RFM matin ñu teewlu ko ci cadre yi mu fi il faut ñuy yokk parce que xamit effet bi jeexagul feebar boo xamante ni xamoo kañ lay arrêté. foog ñu jël suñuy matukaay yokk ressources humaines yi yokk équipement yi pour nous mën rapidement stopper épidémie bi ñu jàppale ñu aussi ci vaccination parce que tant que vacciné wuñu nit nous duñu arrêter chaîne de transmission de la maladie. Quel équipement lañu war a par exemple. respirateur yi oxygène bi ñu yokk centrale oxygène yi. Euh, scope yi ñu yokk les euh, maanaam lépp luy équipement milieu de réanimation dafa war a ci biir suñu réa yi ndax ñu mëna jël en charge correctement nos patients et prise en charge bi dafa wara dem ba niveau périphérique manam ci centre de santé ba lay commencer il faut un centre de santé déjà il fo que mënee yóbbu oxygène amana am nañu commencé am ay oxygène ci centre de santé mais dess na batay il faut déjà qu'on commence l'oxygénothérapie ñu commencé oxygène bi rapidement déjà au niveau centre de santé bala ñu yexi au niveau de l'hôpital sinon rek dina dina dina doy est-ce que situation bi ci l'hôpital yi dafa critique jamono ji wala. dafa critique nañ ñu wax carrément dafa critique parce qu'on est en tension de lit Lit en tension moy lan moy bu ñu reppee tout rek.

ñàkk na maanaam matewul ndax ya fa nekk yëpp dañ leen a occupé lu ni mel tax médecin urgentiste yi yëkkati seen kàddu di xam léet ne daal euh, variant delta bi xeetu virus la boo xamante ne ji bàyyiwul kenn du mag du ndaw ne askan wi gën a wàccoo ak gestes barrières yi ñu santaane ngir euh, moytu lu lawal jàngoro ji rawatina ci jamono ji ñu jëm ci tabaski Mbour Abdourahmane Diallo. variant delta bi mu ngi gën a am dayoo ci département bu Mbour ñu ko xamle mooy médecin urgentiste yi ñu xamle ni fi mu ne nii lalu hôpital yi yëpp a fees docteur Khoudous Mama médecin urgentiste hôpital Grand Mbour. heure bi jot na pour ñu jógaat. mbas mi ba léegi jógewul fii. te virus bu ñu xamoon bu njëkk ba virus bi dafa dem ba changé dafa mute te ci mutation yi dafa am beneen variant yu bees bu ñuy wax virus delta corona delta boobu nag gis nañ kaay yi nu ñu commencé law ci biir Sénégal bi ñi di wengu ci wàllum wergu yaram di xamle variant bu bees bi am tamit ay mandarga yu wuté ak nu coronavirus don def ci yaramu nit ñi lu ñuy xamoon ci corona bu njëkk ba mooy maag yi yoo gën susceptible am feebar bi maanaam maag yi la gën a attaqué mais fu mu nekk ni virus bu bees bi moom bàyyilu kenn amul xale amul mag ñëpp lay attaqué te du muy waale moo gën a gaaw virus bu njëkk bi nu mu doon waale nit ñom sax ñuy ñaax sénégalais yi rawatina ñu fexé ba nga xam dinañ jël ay matuway ar sen bop surtout sax ci jamono tabaski bi tabaski su rassemblement familial day am rassemblement su amé nak lu gën may ñu respecté ñu distanciation 1 mètre 50 bi ku dëkk Dakar ni nga ñibi sa kër pour dem tabaski ji boo jëlee virus bi nga ñëw sa kër di ko wàlle nit yi xam ne ni problème dina am ci famille boobu ndax nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax. RFM bo Abdourahmane Diallo. ba tey jooju la jàngoro ak woy politique yi moo xam ñi ci majorité bi ak ñi fare ci kujje politique gi àndandoo nangu ne ji moom jëli matuwaay jot na l'heure est grave ni ñu koy waxee eh, ci seen gis-gis ñu bàyyi wax ci jàngoro jiiteel ñëpp mu di woppi Covid 19 ji waaye nag di doon yaa ngi jiñ weneen wàll wane sa loxo génnul ci li lawal Pabes Diba. way politique yi am nañ yëg-yëg bu baax a baax ci feebar Covid 19 bi fu mu toll ci Sénégal waxtu yi garaaw na gis-gisu Cheikh Bamba Dièye la moom njiitu FSD/BJ mu ne nag lan la ci ku nekk def waaye gis na li muy tuddee irresponsabilité wu ci bopp surtout ñi jiite nag réew mi ci situation bi fi mu toll. dañoo bàyyi suñu loxo xëy na li ko gën a sooke sax moo di que ni gis nañu kilifa gi nga xam ne moo nekk ci bopp réew mi ak acteur politique yu bare am comportement yoo xam ne dafay mel na ni feebar laa ngi si suñu gannaaw mais li ñu jot démb ak tey ji wan nañu dëgg-dëgg que ni affaire bi tey la waalo gën a ay. ñëpp ci responsable mu mel ni mooy gis-gisu Moussa Sakh porte-parole Ligue démocratique ne nag njiitu réew mi rek kenn mënu ko ci joxoñ ne ay ndaje yi mu woote moo tax situation bi toll foofu président deful meeting Dakar te Dakar moo ëppoon ay cas donc man gisuma benn preuve scientifique bu mën a tax ñu wax ne président bu mu demee Matam ak Podor moo tax Covid bi yokku yëpp gis nañ li xew foofu mais que président bi deful meeting defal ay rassemblement te Covid bi am na fa donc nañ bàyyi ne président moo def lii wala kii moo def lii parce que waa opposition aussi def nañ fi ay rassemblement mais kenn dutul waa waa opposition. lu ci mën a nekk majorité ak opposition d'accord nañ ne dañoo war a boole doole yi ngir xeex feebar bi. li gën a am solo Covid bi mu ngi fi ñun ñëpp ñeen ko xeex amul opposition amul presse amul société civile amul pouvoir parce que bu ñëwee mais yëpp la concerne dañoo bokk réew mi te yeneen i farata yi nekk ci réew mi ñu ngi koy joxee fulla war nañ ko joxe li nga xamante ni mooy santé doomu aadama yi et je pense ko ci bopp réew mi jàpp ci sëriñ yi jàpp ci acteur politique société civile bi ñun ñëpp dañoo war a tag booloo acteur politique yi moo xam boor boo bokk du naqari syndicat médecin yi nga xam ne nii ñoom dañuy woo nag waay politique yi ñu dugal seen loxo ci xeex feebar bi bu baax lu aju ci boobu le feebar ak euh, bés yi nga xamantene ji kon jukki bi ñuy am ci bés yi lolé dañuy gis né record bu yémé la Sénégal euh, mo am ci réew mi Sénégal jiitoo ko réewum Algérie nga xamantene ji kon moy réew yu ñu né mom le wopp ji sonal ci déndub Afrique bi feulé ci euh, lu aju ci li nga xamantene ji kon moy tollu tolluwaayu jangoro ji dañ ciy ànd ak Abdoulaye Cissé cib taxaw seet. dara warul woon a mën a tax jamono ji ñu toll di xalaat méngale situation wu Algérie ak situation Sénégal ndax Algérie mooy réew mi ëpp cas ci continent africain toll ci quatre vingt dix neuf mille cinq cent dix juróom-ñeent fukki junni ak juróom-benn téeméer ak fukki cas ñetti junni ñu jot nañ caa ñàkk seen bakkan Sénégal mu ngi toll ci quarante sept mille cinq cent quatre vingt seize fukki junneeg juróom-ñaar yu teg juróomi téeméer téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-benn bu ñu sañee ne dong donte junni nit ak ñaari téeméer ak ñett jot nañ cee ñàkk seen bakkan waaye boo gëstoo chiffre yi bu baax jar naa tiit ndax Algérie la fa yeewoo ci doomi aadama mat nañu ñetti yoon ñi yeewoo Sénégal 43 millions wu doomu aadama lañ boo ko méngalee nag ak seeni cas Covid da ngay gis ni fu ñu amee cas quotidien juróom-ñeenti téeméer Sénégal am fa juróom-ñaari téeméer kon ñoo leen roppi fuuf ci ni nga xam ne ni feebar bi duggee ne ko ci réew mi ndax boo jëlee cent mille habitants yu ne foofu ci Algérie deux cent trente cas booy moom la ñuy am ñun fii explosé nañ record boobu ñu ngi ci deux cent quatre vingt dix moo tax mu jara tiit Covid bi nag amul secret ndax ba fi mu toll nii mesure barrière ak restriction mooy dox fu ne bu ñu bëggee wàññi kaay Algérie sax moom mi pays bi ëpp kaa ci Afrique delluwaat na ci dimaas bii confinement ak couvre-feu bu scientifique yi waxee fii ci biir réew mi nag ne loolu mooy pexe xëy na jaratul xaar ndax faw ñu wàññi raj-rajloo bi dajaloo bi ak it bañ a takk mask RFM. xibaar yi ci RFM. mono ji ñuy waaj tabaski lu aju ci ñi nga xamantene ji euh, embouteillage yu bari la euh, doonatul sax ci li ñu heure de pointe di yi xamne ñepp ay de waxtu wo jug rek dekk bi fay xat lol dem ak bi lu ay waxtu di reportage Omar Mbow Karamoko Ousseynou Ba ak ñeneen bari na ay dawalkatu woto yu dund lu metti jamono ji ndax embouteillage. c'est pas facile metti na trop. auto bo defal mu yàqu. <laughs> dembu bo xol sax liggey mo ngon si dafa metti ak circulation metti client amna na waaw client amuñu ñu leen ndax circulation metti bi. diggante Kasma croisement Cambérène embouteillage metti won lol tax yenn ci chauffeur yi daal di def demi tour ci yoon wi. li waral yilee embouteillage nag bëri na di xamle ko balaa ngay génn fii marché Gueule rek case bi xam nga dafa métti ah dafa métti mais nag xam nga peut-être événement bi la aussi ak travaux yi. travaux yi muy joxoñ baaraamu mooy travaux yu BRT yi nga xamante ni ca wet ga ouvrier yaa ngi liggéey. jóge gas de grand. gars ah, golf pour dem centre ville bu Ndakaaru fukki ak juróomi minute rekk nga doon def en temps normal waaye jamono ji ñaari waxtu sax boo mayul du tax nga yegg. RFM rond-point ba Omar Mbow. minibus tata yi ñi koy dawal géréw bi ñu nekkee woon te teg ko ci suuf loolee ñu yàbbi lañu ñu si euh, tuuti di ko rafetlu mu di conseil exécutif des transports urbains de Dakar di xam lay ne dañu def ñom seen katan wa gar ci ba fi nga xamantene ne ji chauffeur seeg njiital njiiti yi déggoo nañu ci ñu daal di jëfee déggoo googee njiital euh, CETUD euh, Thierno Birahim Aw lañuy ñuy la ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jeen amna liggéey bo xamné tambali won nañ ko depuis 2019 d'ailleurs baax nañu préciser né opérateurs yi am na ñu ci bari ñu def ay contrat di tenir actuellement seen assemblée générale ma leen ci encourager di leen ñaax tamit pour ñu gaawal liggéey bi nga xam ne nii moom nekk di def pour régulariser secteur bi waaye baax na tamit ñu fàttali ne accompagnement bi ñuy indi dañuy jëlee secteur artisanal informel yóbbu ko ci formel moo tax foofu tamit employé yi dafa am responsabilité bu leen war mooy ñu xam complexité bi nekk ci jëlee nit ci artisanal yóbbu ko ci secteur formel d'ailleurs xam nañ ko ba tax ne liggéey boobu tàmbali woon nañ ko depuis 2019, mille am na comité boo xam ne mi ngi en place surtout di encadrer acteurs yi mooy employeurs yi ak employés pour ñu déggoo ci li nga xam ne nii fi mu toll nii euh, kenn dootul naatable ne lu lu war la lu war am la te ñoom parti yëpp d'accord nañ ci mooy def ay contrat li ñu tàmbale woon nag dañ ne fin 2021 au plus tard bëgg nañ contrat waxu contrat yi nekk suñu ginnaaw. pour euh, liggéey boobu mën a nekk surtout ministère du travail ak ministère des transports dinañ ànd ci fexe ba weer bu nekk ñu évaluer employé yi fi ñuy toll ci contractualisation yi waaye laaj na tamit loo xam ne sut na euh, liggéey bi ñuy nekk di def nii mooy faire def réforme bi nga xam ne mooy ñëw beesalaat convention collective terminus liberté 5 di terminus Dakar dem dikk la ñu fa seetlu woon démb mu di nit ñu fay dajaloo bëggoonub ticket ngir mën a jël ci watay senegal dem dikk yi dem ci biir réew mi ngir mën a tabaski ci ay ci seen i mbokk ñu gis na yëf yi dafa juróon ab dajaloo bu bari demoon sax ba ndig salfaañoo tey jii xëy nañu fa dellu waaye li ñu seetlu mooy bu ameeg tan it tànn nga bariwul ñoo ngay toog ba léegi di xaar nañu mën a amib ticket ngir mën a dem tukki euh, tabaski ji ci seen i mbokk donte sax kilifa yi ñoo ngay def seen kéemtalaay kàttan ngir yëf yi xawatane euh, ba daal gis nañu ne moom mbooloo fay daje di xaar Nous ñu mën un def ba amub euh, ticket reportage foofee terminus Liberté 5 Mohamed Ali Mouba. ci Liberté 5 siège Sénégal d'Emdik, Dikk amul bousculade comme d'embu, waaye voyageurs yi ñëw nañ ngir billet dem Tamba Kolda Kaulak, Ziguinchor ak feneen waaye yombul ci kanam nag ci seen guichet bi nit ñi bëri fa billet Oumar depuis ci suba si mi fi. aw ticket waaw bu ñu mënoon yaa yaa c'est un problème rek. foo war a dem yow. sur sur sur Kaolack. Kaolack Kaolack. léegi amoo Kaolack demande dafa bëri quoi amul dafa manqué. amul amul amul ticket leneen dafa jeex. bu mardi moom te mardi mun na mu doon julli. vraiment tu es dans des situations. voilà situation nekk fi mu ne. rang bi dafa compliqué gars yi rang wuñ dañ defoon benn bloc te <laughs> man bëgguma nekk fi di puusanteeg yooyu moo tax taxaw fii. mais maa ngi gis <laughs> mi progress rang bi normalul de légui lañ ko doga a ni ben bloc lañ defoon nii moo ma taxaw ni je pense que bo duggee di nga am ticket. je pense même pas xaw ma sax wóorul dal dañuy woté ci réservation bi ñu ne faaw ñu ñëw fi réserver sur place. réservation bi dafa compliqué. parce que en ligne lañ don réserver. ci beneen côté bi ay groupe voyageurs yoo xamante ni dañoo bëgg dem wutali Ziguinchor waaye nag amuñu ticket ñu bëgg nag ñu wutal leen bus. seen plateforme ñëw yëpp mais booy def du dem.

lu aju ci euh, directeur bu senegal dem dëkk di euh, Makhoudia la mi ngi amal ab janook taskatu xabaar yi ngir indi ay leeral jëm ci situation boobee ak li ko indi ak it yan matuwaay la ñu ciy jël des na ci dellu siwaat li tukki ci boobu la janoo ak taskatu xabaar yi ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak maam astukan ma ñu fa yebal wutali Île de Mar ma nga kon ca diwaanu la diwaan ba léegi am na ambulance mu di guléet nag ba il yooyee sancee ak léegi leneen luñ ci mën a jàpp te ci sàkku saafara moo di barabu fajukaay ya fa nekk jumtuwaay yi ñuy soxla dëgg-dëgg ngir di mën a faj na mu waree dañ ko amul ginnaaw ambulance bi ku leen dimbali ci équipement ñu jël Aminata Goudiaby ci embarcadère ak partenaire yi mu àndal fexe ba dugal ambulance bi ci ab gaal mu yóbbu ko Marfa fakkoo benn la nag ci dëkk yi nga xam ne ñoom ñoo féete ci ndox mi ci biir commune bu Fimela ñu ni soxla woon nañ ko trop foofee ca post de santé bu Marfa Fako Karim Sène moom mooy maire bu Fimela partenaire yi ñu jox ambulance bi ay italien lañu mais kiko yombalal moy Arfan John bi nga xam doomu gox bi la mais lata ambulance bi italien yoy may nañu ambulance pirok defar ko mu ngi fi joxoon joxoon nañu benen auto ambulance bo xam mo nga ndangan parce que fi da nga don jël malade fi wara dox 1 km 500 pour jot geej gi da fay xawa sori amna ñu bari ci yoon bi lañuy muju dess bu weesoo poste de santé bu Marfa Fako ambulance bi dana yenen itam bu faju kay yi nekké ci île yi mu dendal xam nga île bi ñetti ñetti village la Marlo Marfa Fako ak Marsulu ak Marouane dañoo indi oto bàyyi ko sur la terre indiwaat beneen oto jégil jégil ko ndox mi pour mu jot leen. infirmier chef de poste bu Marfa Fakko di rafetlu bu baax liñ fi indi ambulance bi waaye nag moom Idrissa Sarr mi ngi wax yeneen jafe-jafe yoo xam ne moom moo nekk ci poste de santé mu jiitee bâtiment ba mu nekk dafa màgget te itam jumtuwaay ci bëri fii mu ne dafa màgget. amoon nañu équipement mais instant yi équipement bu yëpp yàq ay fissures la am ay tiwo ndox yu yàqoog ay lal yu xomaak courant amul itam foofee ca dëkk ba loolu tax ba liggéey bi léeg-léeg day metti surtout bu guddi jotee. di saa saam boo xam day def accouchement ak ay portable ou bien à lampe torche am na fii mar faafa. nee na yeneen bërëbu fajukaay yi nekkee ci dëkk ndox yi yu ci bëri daanaka ci situation boobu la ñu nekk mu jàpp ne nguur gi dafa war a beral loxo ñi nga xam ne ñoom ñooy yeewoo ci dëkk ndox yi rawatina ci wàllu wérgu yaram Aminata Goudiaby Fatick RFM. Aminata waxtaanee wàllu politique suba kon ci ngoon ci la opposition euh, député yi fare ci opposition bi fas yéene jébbal seenu recours conseil constitutionnel ngir bëgg ñu nénal projet de loi bi jëm ci modification ñeel code électoral bi xibar la bop ñu ko jëlee ci député Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly mi ngi bok ci bok gis-gis ku jëg politique ci pàttali dafa am lenn ci euh, modification yooyu yoo xamante ne jikkoon ànduñu ci lu ñeel article L29 ak L30 loolu la ñuy jébaane ba tax ñu bëgg conseil constitutionnel bobu boobile loi. RFM bitim Georges Déthié Diop la ñuy dalal Georges Nam Diop. jërëjëf Ndiaye. ñu doore xibaar bi réew yi ak réewum Afrique du Sud fitna jafa am ña cay ñàkk seen euh, seen i bakkan bilan baa ngay gën di diis. bilan bu mujj bi ñu def euh, démb ne juróom-ñaar fukki nit ak ñaar ñoo ca ñàkk seen bakkan ñaar fukk ak juróomi ñaar ya ñu ngi euh, faatoo ca pays Zulu ñeent fukki ak juróom ca Johannesburg di prof ca province bii di Gauteng police xam leen nag li ëpp ci ñooñee faatu ci ab buuxante la jamono ji nga xamante ne ñu ngi dugg ci magasin yi di def ay centres commerciaux ya ñeneen ña nag euh, ñu ngi faato ci ay ay distributeur automatique de billets yi nga xamantene dañoo kalaate naka non itam ak ay violence yooyee am Afrique du Sud nak euh, ñu ngi door ganaw bi ñu tëjee kasso njitu réew mo Jacob Zuma est République démocratique du Congo sénateur bi di Augustin Matata Ponio placé nañ ko résidence surveillée lata loolu sax dañ ko placé euh, sous mandat d'arrêt provisoire ganaw euh, bi que cour constitutionnelle dégloo li ñu koy euh, toppee nag euh, bokk na ci moom premier ministre ba woon jamonoy Joseph Kabila ni saytuwul bu baax koppar gi nga xamante ne dañ ko jegle loon ngir indemniser ñi nga xamante ne ñoom la ñu exproprié woon foofu ca république démocratique du kongo jamonoy euh, Mobutu dogal googee nag dogalu indemniser lu xaw a toll ci ñetti téeméeri victime ñu ngi ko jëloon jamonoy Joseph Kabila ba mu nekkee président ki nga xamante ne nag moo di Augustin Pogno moom dañoo leve euh, levée immunité parlementaire am juróomi fan ci weeru juillet gi ñu weesu. lu ñeel tukki bu tegewul ci yoon jóge Afrique dem bitim réew gis nañ ne ñi ci ñàkk seen bakkan lim ci géej gi lim ba dafa yokk. junni ak téeméer ak ñeent fukki nit ak juróom-benn ñoo ñàkk seen i bakkan ci euh, géej gi euh, ci semestre bu njëkk bu atub mille vingt et un atub mille vingt nag euh, jamono jooju itam téeméer ak juróom téeméer ak fukk ak ñett nit la woon deux mille dix neuf six cent soixante ci ab rapport bu bees bi nga xamante ne organisation.

tey fukki fan ak ñeent ci weeru sulet réewum France day feete indépendance am danañu défilé. donte nemeeku nañ

ñaar fukki hélicoptère ak ñent naka noonu itam ñaari témèr ak ñaar fukki euh, woto ñaari fas yi nga xamante ñu ngi ñaari fas yi ci garde républicaine Emmanuel Macron mu ngi amon ci wétam nak euh, chef d'état-major des armées général euh, François Lecointe bi nga xamante fan yi ñu dëgmal ki di chef d'état-major bu l'armée de terre moo fay wutu di légionnaire bi di Thierry Bourkhane jeexale kok Italie Pape François genn l'hôpital mom Pape François François ci l'hôpital bi gannaaw biñ ko opéré euh, opération qui colon gi fan ci juillet at euh, ñenti fan ci juillet giñ ñu ni nii. fan ñu weesu. gi ah ñi ci sulet ba waaw bàkk ba jib na ci noonee la ñuy dikk waxtaan jëme ci wàllu tàggat yaram di ci ànd ak eh, Malal Diagne junior Malal maa ngi lay nuyu bu baax a baax. ay lay fay bu baax eh, ci yow la ñu àndal ci wàllu tàggat yaram gi des koy dooree rek ak Sénégal bi nga xamante ne ji kon eh, Diagne loo bind fii. ñu <laughs> dem waaw ma dem. ay ca yow lay yow lay déglu. tubarkàlla Sénégal. waaw ñu ngi jël ñaareelu équipe bi nekk ci championnat ki jël Ah. moom mooy dem coupe d'Afrique ba ñu duppee coupe CAF fii jaraaf demoon bi def fa demi-finale. Ah, ah loolu nag dañu ko jël ni mu dogal ndax dañoo gis ni dañoo am lu ñu xaw a yéexee defe ci euh, jongante coupe de Sénégal fii. Mhm. du mën a wax kay jël loola mooy teewal Sénégal te woowee jongante gannaaw nag ñoom xam nañu ne dañoo tàddee ci yëf ya. ñu daal di euh, benn yëf yi ni ki nekk ñaareel si championnat bi moo war a demal Sénégal ca googu jongante. Mhm. muy lu nu xabaar génne ko ci bataaxal joxe ko Soro Thiam yëddu na bataaxal bi faram ko ba mu gën a leer. gannaaw ab réunion comité d'urgence bu fédération sénégalaise de football niki ki tey jii fukki fan ak ñett ci weeru sulet daal dinañ fay jël ab dogal xamle ni gannaaw Tëngéej FC mi nga xamante ne moom mooy champion du Sénégal mi ñu war a teewal ci ligue des champions bu CAF vice champion bu ligue 1 bi nag moom mooy kiy teewal Sénégal ci coupe CAF ñeel édition gi di ñëw loolee nag ab communiqué bu tukkee ci fédération sénégalaise de football moo ko xamle bu ñu sukkandikoo ba tey ci boobule communiqué lu ko waral moom moo di deadline bi nga xamante ni CAF joxe na ko mu di fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru sulet ngir enregistrement club yi nga war a xamante ni ñoo war a teewal Sénégal ci Coupe d'Afrique interclub yi waaye itam yéexte gi nga xamante ni gis nañ ko ci calendrier Coupe du Sénégal bi mu di ab jongante goo xamante ni niki démb képp sax dañ doog a def tirage au sort huitième de finale yi maanaam kon ci seizième de finale yi rek la ñu daal di joué ci noonee ka nga xam ne nag moom moo war a teewal Sénégal ci Coupe CAF bi daañu ko xam ci ñaari bëccëg yi nga xamante ni moom moo des ci championnat Ligue 1 bi ne dina dox génération foot ma nekk ci ñaareelu place bi ak 42 points 15 jàmbaar bi nga xam mi ngi ci place bi moom am 42 points plus 14 jaraaf nekk ci place bi ak 41 points 2 ba ci sax mi nga xamante mi ngi ci place bi ak 40 points plus 5 moom it mën na yaakaar lu ci am dogal gi comité d'urgence bu fédération sénégalaise de football jël moo nar a animé débat yi ci fan yi ñu jëm. ñu wax ni itam équipe bu euh, Sénégal ba ñu yóbbu woolu woon ca Kosafaja muy jongante bu boole Afrique euh, réew Afrique euh, Australie Sénégal bokk na ci équipe yi génn ci poulam ndax dañu fa daal di jël peel bu mu dooree nag équipe bu Malawi tey ji ñaari bal si benn léegi nag moo jiitu daal dinañ qualifié ci ñaari bi tour topp ca moom Namibie ak réew Mozambique. ñu waxtaanee wàllu Ligue 1 ak mat bu ñuy xaar fële ca Déni Biram Ndaw tey ji ci ngoon la. ndax ka jiitu di Tëngëj FC moo dem fekki équipe bu génération foot. loola takkusaan lay doon foofa ca Déni Biram Ndaw ci biir réew mi itam Pikine mooy dalal ci san Djigo équipe bu euh, AS Douane ñaari tali ak Mbour Petite Côte daanu laale Casa Sport dalal ci Ziguinchor équipe bu Jàmbaar Dakar Sacré-Cœur laale ak waa Gorée Stade de Mbour daanu jongante SNEPS Excellence mooy dalal ak waa équipe bu euh, Jaraaf waa Thiès yi yore football bi foofa danoo amub dëj ndax équipe bu Thiès FC seen président démb dafa génn àdduna ci ba mu ko këram tàggu soxna sa ni dafay dem ca ISAD ba xool xale yi di entraîné ngir waajal joŋante bi ca foofa la ko sunu borom moomee tey ji lañ ko fas yéene jébbal borom moom ci bu tàkkusaan jotee kon waa Thiès yëpp euh, ak axlu football yëpp ñu leen di euh, mastaw di leen jaale tiis woowu dal seen kaw lig 2 jooju sax ñoom daanu joué seen i ay bës ëllëg ñu ne nag joŋante ba ca gën a fës dina dox diggante Guédiawaye football club bi war a laale ak waa Linguère bu Ndar la ñuy nag mooy Linguère dafa bëgg dab. mbaa mu romb ki di football club ngir jël premier ci euh, yëf yi ba noppi nekk champion Wa Guédiawaye ñom bëgg jéxal ak benn poñ rek daal di champion ndax itam ñom xas nañu ñaar ñëpp dañu a daal di nag ci Ligue 1 bu euh, Sénégal Mamadou Mohamed maa ngi lay gërëm bu baax a baax Diagne. mënoon mënoon yeewee booy dem nag nag ma yóbbaale. waaye ca loolu rek Diagne bu ci desee foofu nga yooyu ngay wax noonu. waaw ah, ah da nga ma yóbbaale ci yooyu ma ma cay dem. duñ doon waxtaanee sànq. waaw mais bu ñuy dem Ablaye bu mu topp. <laughs> déedéet parce que dem ku jóg mu jóg. <laughs> te moomu làmmiñoo. te moomu làmmiñoo. jërëjëf Diagne. RFM nit yi yéen a kaay Sedima mi leen di jagleel seen aliment bétail jur gi laadum ak jur gi tout ruminant di may seen revue de presse. nca assurance santé famille weer weerle Marseille créole A AAD Abdou Alima Diop seen Opalia seen cuuraay raktak bi rey yooyu ak USAID Brexit Action ñoo leen may li ci Mamadou Mohamed Ndiaye jirë ngeen jëf ci réew yi Afrique de l'Ouest yi feebaru coronavirus bi gën a jàllaa ñëw suñum réew di Sénégal ci la bokk l'Observateur moo ko bind ubbil yéenekaay bi kuréel gi gàlloo wàllu wér-gu-yaram ci àdduna bi yépp di Organisation mondiale de la santé ñoo ko xamle journal bi nañu ci jamono ji ñu bari jàppee ne mbas mi mi ngi jeex ci réew mi ñeenti variant yu yees feeñaat ci variant yooyee bokk ci variant delta bi ñu bari gis ne moo gën a mbir yi dafa suppiku wopp jaa ngi ci réew mi te dafa gën a ne fu ci mel ne ci l'hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay lali réanimation desatu fa yépp lañu occupé lu ëpp ñeen fukki malade sous oxygène la nekk maanaam dañu leen di dolli ngelaw ngir ñu mën a noy l'observateur nañu te nag ñoo ngi rumandaat ñaar yoo xam ne benn ci jëmul kër benn moo di nit ñi dem ba yegg ci di jël ñetteelu dose ngir mën a aaru ci variant delta bi ñaareel bi di beneen xeetu variant bu ñuy dégmati bu tudd lambda lëkkutuje nañu mbas mi ak ni mu melaat ci réew mi moo tax syndicat yi fajkat yii di SAMES yëkkati seen kàddu di yëglu nee nañu fi ñu nar a jëm moo di am malade bu sonn te duñu gis lal bu ñu ko tëral réew mi kotuje nañu waa SAMES yemuñu foofee nee nañu ndaje it di rassemblement yi il faut dañu leen di dakkal moo yi diine la wala ndajey politique journal bi dolli ñu ci ne tabaski ren gi variant yu yes yi feeñ ci coronavirus bi moo nar a salfaañe gi sursoi nañu la gis ca terminus Dakar dem dikk ba ca Liberté 5 bu ñu ci waxul lu mën a lawal woppi coronavirus ji la ne ñi nga xam ne dañoo bëgg a génn dëkk bi dem tabaskee ji ci seeni njaboot di wuti biir Sénégal dem dikk rassemblement pëccëxoo gu réy la ñuy dund ca terminus Dakar dem dikk ga ca Liberté 5 ña fa ñu bari ci ñoom nee nañu waa Dakar dem dikk cuune gu ñu cuune moo jur li lépp njiital société Dakar dem dikk gi sax ba mu fa demee doon xooli la fa xew dañu ko doon yuuxoo suur soi bind ne ca terminus Dakar dem dikk ba fa la mer ak xol bu jeexee yam journal tir bi nañu cey askan waa ngi sonn di bëgg a dee bu dul virus delta bi ak i dégam di dund gu miti baak ñàkk gu sëkkatal askan wi xarum tabaski tëj boppi borom kër yu bëri njëgu dund gi di gën di yokk di jëm kaw ki ñu ci yaakaar ngir mu saafara ko di Macky Sall talul dara ndax dox mu miti nit ñi di wëndeelu ndax ñàkk xam fu ñu jëm moo Macky Sall mu jëndub abyongam ci 60 milliards di wër jaww ji di ko essayé fa mu teere ji di ca bokk diggante Sénégal ak Mauritanie journal L'As bind ne collectif des acteurs de la pêche au Sénégal di CAPS gi Alioune Thiam jiite rafetlu nañu ko bu baax a baax tàcc kook seen ñaari loxo ci nganu président Macky gi ca Mauritanie journal L'As ne nañu acteurs de la pêche yi tënku ci kuréel gii di CAPS nga xam ne daanaka ñoo ngi fépp ci aéroport bu Nouakchott la ñu demoon teeru ji Macky ànd ak moom gunge ko ci biir dëkk bi moo tax ba ñu signé accord de na ko ak colonel Cheikhna Dieng directeur de l'action sociale des armées ci la xamle dogal bu kilifay l'armée bi jël jëm ci li ko tàmbalee benn fan ci weeru janvier 2022 bépp soldaar boo xam ne ci toolu xare fa nga des dinañu la jox kër ca comico ngir njaboot gi nga bàyyi ginnaaw ginnaaw looleet bépp soldaar bu jële ay gaañu-gaañu ci ab liggéeyam bu wanee ay firnde yu wér ci ne ci liggéeyub l'armée la jëlee yooyu la gaañu-gaañu moom it dinañu ko jox pàkk maanaam terrain ca comico ba tey Milendi jaglel c'est un aliment bétail jur Ladum et ak tout ruminant may revue de presse. NCA assurance santé famille weer werlé Marseille créole Kenkeiri, AAD Abdou Alima c'est sen gam Opalia sen touray raktak bi rey ak USAID Breakthrough Action ñoo leen de may li ci benn waxtu ju nar fekk ñeent fukki minute ak juróom-benn euh, fekk fanweeri minute ak juróom-benn kon foofee la ñuy yem ak yéen ci xibaaru digg bëccëg gi Mamadou Mohamed Ndiaye fare woon ci kàddu gi amoon mbégte mu yaa àndoon ci ak yéen Abdoulaye Diop ne woon ci machine bi régisseur d'antenne pod Pape Oumar Diaw réalisation Alaaji Ndiogu Diène service digital euh, service digital ñu àndoon ci ak Maysa